màggal gi mm. bu ca daaru mm. daaru Ndiaye comme ni mu ko waxee eh, màggal gu am solo ah, di ko ñaan yàlla rek ñu koy fekkee ati at eh, mm. ànd ceeg itam Cheikh Baara itam moom te amoon na ca taxawaay bu mat sëkk xam naa ne di ngeen am beneen yeneen mooy eh, yi nga xam te ne ay vidéo yu ngeen gis la ci Sénégal 7 waaye di ngeen am intégralité bu màggal gi itam ci Sénégal 7 waaw président Ousmane ko tamit wax dëgg yàlla yabale na Makhtar Sène ñëw na fa mm-hmm. ñëw gu xat sax wax naa ko jërul ñëw jërul ñëw waaye mu ne ma ba ma ñëwul rek Sonko dana ma mere tax daf ko wax da ko dañoo teewal ko waaye li taxoon ma naan ko jëru ko sax mooy daanaka rek man maay Sonko Sonko mooy man moo fa nekkee rek daanaka daanaka moom nekk na fa waaye teewul yebal na ndawam loo xam ne moo ko nekkal région de Diourbel moom tamit mu mu mu départ ñëw vraiment gise ba xat na lool sax waaye teewul ñëw na te itam li ma ci gën neex mooy mbooleem njabootu Ousmane Sonko gépp mm-hmm. ñu ngi woon foofu si kër ga waaw tayif Jóob tayif ñoom ak euh, ñoom saari wu xel koom euh, mboolem daal ba ci xuray si caam tamit mm-hmm. waaw xuray si ñi moom ñëwut moom da ko fekk bitim réew waaye xam nga moom sama doomu nday la mm-hmm. na sama xarit mm-hmm. euh, rasul ak sama beneen xarit ak ki may ak <laughs> ak ndax moom xam nga aram la tudd waaye moom bokk ko nee daan aram aram la tudd ah, aram man France tubaab la quoi tubaab bu ñuul waaw tubaab bu ñuul la ak sama euh, xarit Abdou Khoudos Gaye ak mboolem waa kër xure si caam yëpp daal ñu ñu ngi woon foofu vraiment mm-hmm. tamit kontaan nañ bu baax seen taxawaay ak yaay Fatima mm-hmm. waaw yaay Fatima itam mi ngi fa woon mm-hmm. kon mu ngi kon nag tàmbali nañu waxtaan bi ginnaaw màggal gi ah ki mu tudd sax moo tax transition la ñu defal ndax moom moom dafa dégg nag moo tax mu ngi wax Ousmane Sonko Ousmane Sonko ni démb ñu bëri doon xaarandi ndaxte ci la ñu doon joxe list bi ñu jàpp ne mooy bu définitive ci ñu war bokk ci élection présidentielle yi waaye nag list ba sans Ousmane sonk euh, Cheikh Bara bi nga jotee list bi yow ngay analyser politique bi ban jàngat nga ci njëkk a def. waa jàngat bi ma ci def mooy euh, bi ñu génnee liste bi. Mhm. Hmm, liste bi génn na euh, vraiment am naa ci ñaari mbetteel benn mbetteel bu njëkk bi mooy génnu Karim Wade ci liste candidat yi ak génn ñàkk a bokk gu Ousmane Sonko ñàkk bokk ci liste candidat yi ñaar yëpp nag bu ci nekk tamit jàppu naa ne euh, teguwul ci loo xamante ne euh, lu rafet la wala lu jaadu. Hmm, hmm. bu njëkk mooy Ousmane Sonko. dañu ko éliminer ci doo xamante ne teguwul ci yoon loolu nag lu sew la loo xam ne képp ku kuy jëfandikoo sa xel boo déggoo li ma lay wax di nga mm. xam ne maanaam jaarul yoon parce que Ousmane sunk dafa njëkk a ñëw ñu ne ko dossier incomplet waaw euh, dossier incomplet bi ko euh, bi ko conseil constitutionnel di wax loolu mi ngi nekk le 5 janvier. 5 janvier dossier Mame Mbaye Niang bi ko atte mi ngi nekk la 4 janvier kon donc atte nañ ko ba pare doog a càmbar ay dossier biñ koy attee càmbar bi ñuy att càmbar ay dossier am le conseil constitutionnel dafa bàyyi problème mu Mame Mbaye Niang bàyyi fa problème mu contumace bàyyi fa yëpp wax ne dafa amul attestation loolu moo tax euh, maanaam bokkul ci list bi donc wax na Sonko motif bi tax bokkul ci list bi su ko waxoon ne ko danga nga amul attestation ba noppi ne kon nag tamit dañ laa daan ci affaire u kon mu nekk ñaari motif yoo xam ne boobu avocat yi di bind seen euh, mémoire de defence hmm. dañuy mën a wax ne a ah, ñun kat ate bi lii ak lii parce que atte bi bu fekkee ate Mame Mbaye rek rek rek la dafa waroon am procédure de radiation waaw parce que administration bi ñoo ko war a raje ba conseil constitutionnel suy wax ne Sonko nekkul candidat parce que dañ ko dañ ko raje day am preuve matérielle mooy kayit bu ñu wane ne Ousmane Sonko génne nañ ko ci liste yi lu xaw a mel na sax la DG doon wax naan dañ ma wax jox kayit ne ma nekkul ci liste yi moo tax du ma ko jox du ma ko jox kii conseil dafa mel ne ñoom dañ ne nekkul ci liste yi mais actuellement Sonko maanaam procédure de radiation kenn kenn kenn kenn kenn kenn entamé gu ko kon ba léegi mi ngi ci liste yi loolu mbir la moo xam ne mi ngi mel na nga am sa xale muy jàng nga ne ko tey xul wallaahu la ñuy tari yaa ko ko wax mu dem jàng xul wallaahu ba mokkal ko ñëw jox la kayit bi bëgg a tari nga ne ko noonoo tey euh, iqra wala inna ansalnaahu la ñuy tari maanaam yow nga sensé waat li nga ko waxoon mooy bi nga koy bi nga koy wax ne ko lii moo tax mënoo bokk ci candidat yi da nga ko ne woon problème mu attestation la point bii la bi mu ñëwee nee na effectivement amoo attestation amoo parrainage waaye du ci yow yow Ousmane Sonko conseil concerné li ñu doon yooxu ñun ñëpp mu nangu ko ne bu ko amul kon dañ ko jaay doole foofu nag maa ngi fi taxaw mooy kon ca Ndeela ak Cheikh Issa Sall yéen ca Ndeela moo moo moom DCA e. Cheikh Issa Sall moo nekk CDC euh, kon yéen ñaar conseil constitutionnel nee na da ngeen a tooñ Ousmane Sonko da ngeen a tooñ parce que da ngeen ko waroon a jox ay pare naa sam joxoo leen ko kii daf ko waroon a jox attestation joxoo leen ko ko conseil constitutionnel nag moo ko wax kon donc ubbi na benn branche boo xam ne bu subaa buñ bëggee topp candee la yóbbu ko candee la jël candee la del bu fekkee candee la dina yomb parce que moo tooñ te loolu as dafa war a moytu ñu naan ko yaa tooñ te moom moo tooñ parce que démb conseil constitutionnel nee na taxaw gi candee la taxawoon ne du jox Ousmane Sonko ay parrainage am tegu ko ci yoon wax ne caisse de dépôt et de consignation ñàkk gi ñàkk a jox euh, Ousmane Sonko ay fiches parrainage attestation am teguñu ko ci yoon kon donc ñoom ñaar ñëpp tooñ nañ Ousmane ko tooñ boo xam ne lu weesu élection yi boo bëggee entamer procédure pour topp leen buntu baa ngi noonu loolu en attendant. ñu xaarandee ko. <coughs> waaw léegi nag moom ñëw na wax ñu ne ah yéen kat da ngeen amul attestation ñun ñu dem wuti attestation lu koy firndeel ba indi ko mu ne li koy firndeel d'accord naa ne kon loolu yoon la dañ leen a tooñ kon accepté naa ne léegi li ngeen manqué woon ba mara rapproché leen ko léegi am ngeen ko. kon moo ci des nekk candidat mu daan ne waaye kon it Mame Mbaye Niang dañ leen caa daanoon pourtant moom bi mu ñuy wax ne amoo leen amoo leen amoo leen amoo leen amoo leen attestation pourtant boobu daanu Mame Mbaye bi mi ngi fi dañu ko waroon a waxaale ñu boole ko ci suñ mémoire de défense mais waxuñu ko da na bu ne cell ba ñu egsi ba nga xam ne recours weesu na mu jékki-jékki daan ne waaw léegi yéen tamit affaire Mame Mbaye Niang voilà kon loolu mooy ñoom foofu lañ tooñee Ousmane Sonko li muy firndeel mooy coûte que coûte moom man li ma gëm mooy Ousmane Sonko doonul woon bokk ci élection yi. loolu nag leneen la. fu ñu mën a jafandu rek dinañ fa jafandu. ba teg dara parce que bi njëkkee teg lee gis ne loolu dëgërut dañ ko teggi tegaat leneen. Mhm. te ko tege noo xamante ne avocat Ousmane Sonko yi duñ ci mën a indi seen seen seen seen seen i réponse mhm. parce que dañu bàyyi ba yëfi définitif rek ñu doog a souligner mooy tooñ bi nga xam ne tooñ nañ ko bi ci des nag mooy. tooñ population Sénégal bi yëpp mooy candidat bu toll ne Ousmane Sonko. nekk ab opposant di euh, opposé wu saagawul ñam dëkkal saagawul kenn waxul kenn lu bon saaga wul sax ñi muy politique andool lu dul Mame Mbaye Niang moo yore dossier moo yore xaalisu senegal mu di ca wax Mame Mbaye gis na dañ ko cee tooñ amul tey Afrique dinañ dellusiwaat ci dunduk Ousmane Sonko ak fi muy jaar mais bu ñu demee ba ne lan moo tax nekkul candidat lan la état du Sénégal di teg ci taabal lan la démocratie Sénégal di wax lu dul diffamation rek boo xam ne sax dañ ko taxaloon dañ ko tëjoon ci deux mois procureur dem def appel pour ñu yokkal ko peine bi pour mu mën a méngoog luy tere mu bokk ca élection maanaam loolu foofu la démocratie Sénégal toll daal loolu tamit tooñ nañ askanu Sénégal. tooñ nañ askan wi parce que waruñu woon a nangu démocratie Sénégal ak fi mu toll ñu ne benn simple diffamation moom moo tax nit du nekk candidat nit ray nit wala boo ñu tuumaal ko ci rey nit liñ koy teg ci ay peine matul 10 million matul 20 million matul 30 millions jël diffamation fexe ba nit ki nekk ko ci candidat ba noppi teg ko ci daanu 200 millions million day mel ne loolu lépp boo ko xoolaatee acharnement la yoo xam ne day jëm ci kaw Ousmane Sonko ci euh, digganteem ak justice su Sénégal troisième tooñ bi ci des nag mooy euh, Sénégal miinuñu wax naa ko keroog ku am légitimité politique am légitimité ci askan wi nga xam ne wóor na ñëpp ne xam nga luy lan mooy démocratie mooy mooy dëkk boo xam ne maanaam askan wi ñoo koy gouverner loolu mooy démocratie mooy askan wi ñoom ñooy gouverner léegi aw askanu lëmm nan la ñuy gouverner xam nga def booy wate budget askan wépp ne waaw nga doog a wate boo dee tëj nit askan wépp ne tëjal ñu doog koo tëj boo dee tijji ñu ne ñu askan wépp ne tijjil ñu ne déedéet ñu ne noonu bu ñu ko dee def dëkk bi day tax du lool du baax ñu ne nan la ñuy def mu ne dañuy jël askan bi ci seen bopp ñu ne tànn leen kenn ñu tànn kenn mu nekk ci kaw nguur gi ñu teg ko ci bopp bi nga xam ne mooy def ci suñ tur ñu daal demaat askan wi ci seen bopp tànnaat ay nit yoo xam ne assemblée nationale la ñuy tudd ñoom ñooy toog tamit lu kii bëgg a def ci ñoom lañ koy jaarale ñu saytu ko ne waaw wala déet moo tax boo doon wàññi ñaata yoon la assemblée nationale di def vote ñoom vote ci at mi ay yoon yu bari lay doon pourtant man ak yow ay benn yoon la ñuy ate wate par at parce que dafa am ñuñ tabb ñoo xam ne ñoom ñoo ñuy wateel hmm. assemblée semaine bu ne mën nga wax ne dana am vote wala weer wu ne mu am ay vote nga dem jël urne dugal comme yow ni ngay voté hmm. parce que da ngaa jël Cheikh Thioro hmm. jël Abdou Bara Dolly jël euh, jël jël Ahmed Aïdara dégg nga jël euh, Ismaïla Diallo dégg nga jël euh, ñoom Ayib Dafe ñooñu ay Guy Marius Sagna mhm. ay ñoom sanu jonn ñooñu ngeen jël ngeen wate ñooñu nag dem toog ci sa place loo waroon a watee rek ñoom ñooñu nga wate ko ci sa place kon donc booy xool ba léegi ñoom nekkuñu fa mais askan wee fi nekk ki nekk ci kaw tamit nekku fa mais askan wee ko fa teg kon donc bu fekkee dëkk la boo xam ne askan wi ñooy décider saa bu jëmee ay élection dañoo war a xam askan wi lan lañ bëgg ñu defal leen ko tey kenn wérantewul ne askanu Sénégal yëpp liñ bëgg mooy Ousmane Sonko nekk ab candidat ñu fal ko mu nekk président de la république dox googu ñu dox diggante loolu dafay wane ne nekkuñ ci démocratie boo xam ne askan wi ci seen bopp ñooy tànn parce que tey ku nekk président Sénégal dañ amoo légitimité maanaam ki légitime dañoo jotul ci moom lu tax jotuñu ci moom mooy ay loi yoo xam ne Macky Sall moo ko fi indi. voilà lu am solo loo xam fa des fa ju des fa ne ku nekk fi mu toll nii mhm. ci bopp réew mi xamal ne légitime waaw amul légitimité kon élection yi kon ndax nekk na luy crédible yi ñu jëm. waaw crédibilité bi moom mu ngi aju woon ci rek maanaam ñi war a bokk ñëpp bokk suñu watee nga xam ne ñëpp wate nañ ki jiitu buy dem ñi ko ñi ko falut sax dañuy tàccu parce que dañuy xam ne malheureusement def nañ li ñu def. mais kii moom moom la Sénégalais yi ëpp tànn mais tey ki Sénégalais yi ëpp luñ tànn tànn maanaam ñiñ buñ ko teree mu bokk ci élection yi kooku élection yi ki falu kooku dafay nekk élection président boo xam ne daf fay sës ñu faj ñu def ko ngir moo fi sës mais defuñ ko parce que moom moo légitime hmm. loolu moom mooy dëgg hmm. kon donc ñun amuñu élection yi ñu waroon a am hmm. depuis deux mille neuf cent soixante ba léegi nag c'est la première fois loolu am te moo ne yaakaaroon ne première fois bi moo nar a nekk ren ji mooy def élection yoo xam te ni duñu folli mais dañuy fal fal ñu bëgg a fal waaw mais bii dafa mel ni dañoo nar a folli nag faluñu folli wuñ ah luñ def élection yi ñu jëm nii doo ko tuddee fal doo ko tuddee folli parce que ki doon folli fal folli na boppam mu muy ne bokkul ki ñu waroon a fal xañ nañ ko mu bokk kon falu ñu faluñu folliwuñ waaw dañoo jëm ci benn situation boo xam ne euh, lu bees tàq la ci àdduna lu bees tàq la ci Sénégal dañ koy bokk di ko jàngat di ko xool di ko jàngat mais nekkatul nekkatul loo xam ne nii lu kii la parce que Ousmane Sonko moom ak lu mën a xew rek maanaam simple diffamation war da woon a tax ñu ne du bokk ci élection voilà parce que loolu moom dafa baaxul ci démocratie Sénégal te Ousmane Sonko nit la koo xam ne Afrique àdduna ñëpp danañ nettali histoire am ni ñuy toogee dañ nettali histoire yonent yàlla Moussa yonent yàlla Isa yonent yàlla Muhammad dañoo marqué woon seen histoire leen di leen waxtaan noonu la ñuy toogee nettali histoire Ousmane Sonko histoire da koy nettali fii ba mille ans ci kanam ñu naan dafa diffamé woon loolu moo teree maanaam mu nekk candidat su boobaa dinañ xam ne euh, vraiment ñun nekkuñu population boo xam ne taxaw nañ dëgg dëgg dëgg dëgg yitteel nañu loolu moo ci nekk beneen bi ci des mooy nga xam ne loolu man xam naa bokk sa question man maa ko bëgga a leeralaale mooy dafa mel ne waaw ñu bari sax dinañ bëgg a xam sëñ Baara dafa gëmoon candidature Ousmane Sonko. ay ca kon. bu yeggalee da nga gëmoon candidature Ousmane Sonko. waaw euh, ndax fu ñu musaan toog da ñu daa wax ne Ousmane Sonko day bokk. day bokk day nekk candidat waaw tey nag kon c'est la première fois. man nangu ne Ousmane Sonko ci personne euh, du nekk ci candidat yi parce que liste bi génn na euh, gisuma ko ci loolu nag maanaam mbir la moo xam ne euh, ginnaaw bu ma waxee naqar bi ma ci am ba pare nekkul loo xam ne maanaam lu ñu doon wax di wàcc la mën na maa wax ne bu dee ci wàllu xel ak muus ak xalaat ak wuti information di ko boole doon na jafe lool nga nangu ne Ousmane Sonko dana bokk ci élection yi Euh, xam nga li ma la bu baax bu dee xalaat nii rek maanaam lu logique waaw lu logique maanaam Ousmane Sonko ci dix mois fukki weer mm-hmm. woo nañ ko quatorze fois à la barre waaw fukki yoon ak ñeent yoo xam ne naan Ousmane Sonko à la barre ci fukki weer fukki yoon fukki quatorze fois tàmbalee ko euh, da koy tàmbalee rek mars mars ba janvier du dix mois la mm. fukki weer defal nga boole yiñ ko woo ñi ñi dem ñu dañ koy rapporté ba beneen yoon nga jël ko ci Mame Mbaye ñaata yoon la dossier Adji Sarr ñaata yoon la appel bi ñaata yoon la euh, cour suprême bi ñaari cour suprême yi saba Sabassi Faye tribunalu Dakar tribunal CEDEAO maanaam du quatorze fois la déet ëpp na ko maanaam maan nga wax ne kay vingt jours yu nekk Ousmane Sonko dañ naan Ousmane Sonko dañ koy atte tey hmm. lan lañ ci jublu mooy fexe ba rendre ko mu bañ a éligible pour mu bañ a bokkate ci nguur élection yi kon donc bu doon kuy jëfandikoo am xel nii di xalaat da wax ne kon Ousmane Sonko mi dana jafe trop mu nekk candidat bu dee koo xam ne tamit da ngay ay information yii da ci état bi am ak seeni nit di waxtaan du ngeen jaar fenn ba bokk bàyyi def lii information boobu dañ koy amee fu ne waaye taxul nag beneen yoon man ma gëm ne Ousmane Sonko dadul bokk ci élection yi lan moo tax mooy man dama nekk nit koo xam ne ah, man Euh, li ma xaw a jàpp ci sama bopp mooy man dina jaamu yàlla di zikar lu bari maanaam nit laa koo xam ne man suñ borom danay wax ak man suñ borom danay wax ak man ma ci façon am du ma yonantu du ma xutbu du ma wàlli du ma awliya waaye nag suñ borom danay wax ak man dana may xamal loo xam ne yàllaa ma ko xamal léegi nag yàlla xamaloon na ma ne mm-hmm. Ousmane Sonko dana nekk candidat ci personne am ci jëm ma am ndigal ci yàlla tamit wax ko nit ñi ñu ñëw ba ca bis ba loolu amut waaye loolu nag damay santaat yàlla ci loolu parce que bu dee ko xamut yàlla day wax rek ah lii kat kon gàcca la wala wax naa loo xam ne amut fekk déedéet waaye bu dee ci ko xam yàlla te alxuraan di sa référence dangay xam ne lii kat lu ñu war a maanaam mënees na koo jàngat ndax yonent yàlla muhammad xam alayhi wa sallam defe naa ne moo gën ñëpp laaye jii may wax muy isirikahumullahu fi manamika xalilan walaw arakahum kasiran la fasiltum wala tanasaxtum fi l amri walakin allaha zalama innahu alimun bi saati sudur ci yonent yàlla Muhammad yi wàccoon bi ñuy xaree Badar yonent bi salaay salaam dafa gént yàlla ne ko mbooloo mi yéefar yi di indi Badar la ñuy doon maanaam dañuy am problème mu effectif maanaam mbooloo ma du bari nombre bu néew la dañuy am jafe-jafe ci seen biir sax ñu tuuti lañ yonent bi salaay salaam yàlla may ko tamit ndigal ne ko wax ko sahaaba yi yonent bi xëy topp sahaaba yëpp ne leen yàlla wan na ma bi xare Badar waaye mbooloo ma day tuuti ñun ñoo leen ëpp saxaaba yëpp ne ah yonent bi nee na mbooloo ma du bari ñi koy waxante daal di am fit takkaayu war seeni fas woor sax la ñu waxoon téwr ñi comme ñun ñuy bëriwuñ ñu tamit ñoo leen di man bi ñëwee ba ci jataay bi ñu war a xeexe ñu fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam lam waxoon maanaam contraire bi nekk fa mooy ñu mat daanaka trois mille ki ñi gën a néew lu ñu wax ci mbooloo xar ba badar jullit ñi trois cent treize la ñu woon ñetti téeméer ak fukk ak ñett ñu doon xeexal yonent bi ñu waxoon duñ bari ñëw nekk trois mille xam nga kon saxaaba yi ci seen bopp ñu ngi xoolante ah waaw yonent bi lim ñu waxoon ak liñ fekk ci terrain bi moom lu mu doon yonent bi ci boppam di laaj boppam moom waaw yàlla lu tax nga won ma mbooloo mu tuuti ba ma wax ko samay nawle ak samay nit ma ñëwaat ci mbooloo mi fekk mbooloo mi bari mm-hmm. yàlla ne ko is yurikahumullah fi manamika xalilan mu ne bu fekkee dama laa won ci sa say nelaw mm-hmm. ne mbooloo mi day tuuti walaw araakahum kasiran la fasiltum mu ni su la mbooloo gi da ngay échec maanaam dama laa wan ne mbooloo mi dafa tuuti ba nga takkaayoo mbooloo mu tuuti am fit ne dama danaa gañe xeex bi moo tax nga ñëw waaye su fekkoon dama laa wan contraire bi mooy dëgg dëgg li am ne la mbooloo mi day bari soo ñëwee rek yow da ngay échec maanaam da ngay échec wala tanaasaxtum fil amri wala ngeen nekk fi di xëccoo yéen seen biir comprendre nga mu ne ma rag dama yàlla nag ne yenant bi damaa bëggoon mbooloo mi bañ a ragal bañ a échec ba noppi bañ a xëccoo looloo tax ma ma jël mbooloo mi ma jël gént gi jox la ko mu nekk mbooloo su tuuti pour nga encouragé ma jaam ñi bañ am fit waaye nag tënket walakin allaha zalama innahu alimun bi saati sudur mbooloo ma bari bari man yàlla dinaa la musal ci ñoom ba yéeney gañe waaye innahu alimun bi saati sudur waxal gaa yi ne leen yàlla xam na sax li ngeen di jax-jaxal seen xol maanaam nekkul ne yàlla dafa xamut woon li muy wax ndax xam na sax li nekk ci sa biir xol yàllaa la ko gën a xam waaye dafa fekk ne yàlla xamoon na ne euh, mbooloo mi dina bari de waaye moo ko wan yonent bi ci geneen anam lu mu ci jublu soññee ko mbooloo mi man nag su fekkente ne damaa jàpp ne yàlla moom wan na ma ne Ousmane Sonko dana nekk candidat te it man xam naa loo xam ne bu ma ko gisee luñ war a wax la ak loo xam ne buñ ko gisee waree su koo wax xam naa ne itam li ma yàlla wanoon am naa ndigal ci wax ko mbooloo mi waaye li ma sant rek mooy suñ borom subhanahu wa taala ci boppam moo ñuy xeexloo xeex bi ñuy xeex fii ci senegal dañuy def loo xam ne jaamu yàlla la mooy taxaw euh, mbooloo mi ñu soññu leen woo leen ñu jàppale Ousmane sonk jàppale Ousmane Sonko gi lan la mooy taxaw ci dëgg fexe ba dëgg di àtte Sénégal lekk alal li baadoola jeex fi jaay doole jeex fi lekk alal li jirim jeex fi moom sa dëgg perte ko jeex feebar doo am foo fajoo jeex bëgg a liggéey amuloo liggéey jeex am soxna mënoo ko am jeex war koo mën a am te amoo ko jeex bëgg di mbëkk ga gi am ñàkk loo dunde ba mu jaral la yéeg ay gaal di dem ci réew moo xam ne ëpp la dara te loolu lépp li ko def rek mooy Sénégal ni mu bindoo mooy junni lañ benn téeméer bi séddoo alal ji juróom-ñeenti téeméer yi amuñu luñ dunde loolu nag la Ousmane Sonko woote ne da ko fiy jële ñun ñëpp ñu taxaw takk suñuy laxasaay di ànd ak ñoom bi demee nag ba nga xam ne Ousmane Sonko kat am na benn jamono ndax am na jamono boo xam ne benn projet am ko woon di woote di doxal ba mu yàgg benn projet ñëw ñaareelu projet ñëw coow li bari Karim Wade jaar fi Khalifa Sall jaar fi ñu koy jàppale ñëpp seen xel nekk ci ah waa ñun est-ce que kii état bi dina am ci moom li mu bëgg wala du ko am xel xel ñaar bu dee suñ mborom soxla nag sama crédibilité man pour ma jox ko mbooloo mi pour pour ñu am fit ba bañ a nga xam ne dañuy am fit takkaayu ne sëñ Baara nee na danañ gañe ñu taxaw takk bu fekkee loolu yàlla soxla na ko ba tànn ma ne ma waxal mbooloo mi ñu am ndam ci li ñuy xeex ba ma wax leen ko su ma ñëwee damay wax ne euh, isuri kahumullah fi manamika xalilan wala tarakahum kasiran la fasiltum wala tanasatum fil amri rek waaw loolu rek laay wax mooy la yàlla la yàlla woon la yàlla wanoon su fekkee noonu la demee na ko demee noonu noonu noonu noonu laa ci sant suñu borom noonu laa ci sant suñu borom waaye nag di wax yàlla nag ne ko la nga waxoon ahlu badar ne lakin allaha zalama innahu halimun bi saati sudur maanaam li mbooloo mi bari bari ak li ñuy taxaw taxaw duñ leen gañe yéenee gañe ma yàlla doon num nam musale ñooñu laay ñaan ci mbooloo mii nga xam ne itam gëmoon nañ samay wax te àndoon ak man parce que bu fekkoon ne benn instant su dul woon ak ñu mel ne man nekk ci penc bi di wax mbooloo mi ñu ne leen day baax demi leen Sonko day gañe suñu wootee mitinu Kër Massar kenn du ñëw soo laajee trois cent millions yu yi ak ñu ko mujj kenn du ko joxe su Ousmane Sonko bu ñu ko doon kar fii ci corniche bi di toj porte weeru otoom di ko diri yóbbu bu nit ñi xamee ne kii kat du nekk candidat kenn du ci sonn kon pas-pas bi nit ñi amoon bay dem di dem di dem ba nga xam ne tey jii leer na leen ne maanaam Ousmane Sonko nekkul candidat de waaye amul lenn lu muy gaañ projet bi parce que xeex nañ ko ba bis bi mujj muy démb nga xam ne démb moom la kuy nekk candidat doo ko nekk ku nekkul candidat nekk ko bis bi mujj ci la mbir mi doog a leer te état bi soxla woon na loolu am ko ca weer yële pour mën a jublu ci jomaay mën a jublu ci keneen ak keneen dégg nga kon nag yàlla mi ñu jëf gëmloo ko mbooloo mi di ñuy dem ba bis bu mujj bi bis bi nga xam ne fii moom tey tey lañ naan tey la wasin baa dem tool mm-hmm. tey mooy daj dëpp gi ñi doog leeral nag ay la yàlla du ko def yàlla mi def loolu maa ngi koy ñaan na maye woon a ahlu badar ndam ci kaw yéefar ya nañu maye ndam ñun kuréel bi ànd ak Ousmane Sonko ci kaw mbooloo mi ñu war a jàkkaarlool te loolu nag ñu ngi ko soxla bisu bisub la 25 février maa ngi koy ñaan suñ borom di ko wax rek bu ñu jàppalee jàppale na kuréelu dëgg bu ñu mayee ndam may na ndam ñoo xam ne defar ak def lu baax dong moo leen tax a jóg suñu xañee tamit day mel ne kon la yonent ba waxoon yàlla bisu badar yaa saxal penc mi jaayeen doole ak sàcc alali jirim te yàlla nag doo def loolu jàppaleel ñi nga xam ne ci dëgg lañ nekk ñu saxal ci penc mi dëgg kon loolu rek laa ciy tontu ponk boobu leer na waaw euh, ci laaj boobu moom leer na naa ñi moom mm. mais mais beneen bi mooy comme ni nga ko waxee mm. euh,